man dama cee rafet njort damaa rafet njort man suñu borom laa rafet njort yàlla damaa wóor ni Ousmane man li ma xam mu di ko dund ci bëgg Sénégal ak coono yi mu jànkoonteel te dara taxu lu dul Sénégal faw suñu borom dugg ak Sénégal yi nga xam ne itam comme ni ko soxna Kana waxe politique mosu koo ñor mosu la politique fii bari na ci yéen ñoo xam kenn kenn ku ci mas a am carte fàtte mu waaw kenn ku ci mas a am carte fàtte waaye mbir dafa ñëw rek ngeen am ci yaakaar kii li mu leen wax mu doy leen loolu leen ci dugal diaspora amul kenn koo xam ne tey Ousmane Falor postulité na ko li ngeen di daj itam ba ba histoire amee ba léegi li ngeen di daj ci passé bi jël seen alal seen doole da ko ci def am na ñoo xam dañuy rey ñoom ba bët seen ñu dem liggéey bu ñu wootee am na ñoo xam ne dañuy déplacé déplacé def lu ma trois cent kilomètres quatre cent kilomètres ñu rien que pour pour projet bi yàllaa ko may li mu ko may ku yàlla nar a dimbali nag kenn ku ci ne bokk na ci nangu dogal suñu borom nu mu melal nit ki rek mu neex dañuy nett ni maam Thierno Birahim suñu tubaab mas na ko wax laaj ni ko loo gën a bëgg ma defaloo la ko mu ne ko damaa bëgg nga ñaanal lu yàlla dogal mu neex eh, kero benn bés man damay waxtaan ak Ousmane Sonko mu ne ma sëñ maa ngi lay waatal ci yàlla ne lu yàlla dogal ci man neex na ma ne ko loolu de maam Thierno ñaan loo woon na ko sëñ Tuubaa te xam naa ma ne ko loolu de sëñ Tuubaa mas naa wax maam Thierno ni ko loo bëgg ma ñaan la ko ko ñaanal ma lépp lu yàlla dogal mu mooy lii wax ni kon euh, bu baax a baax ma gis itam ci ay doomu aadama di tàllal seen loxo di ñaanal Ousmane mosuma benn doomu aadama bu ñaan lu toll noonu néew mu amul de waaye gisagu ma li ko yàlla may itam ci suñ Afrique waxuma la sax Sénégal mais Afrique gi sax amul kon sun borom may na ko loo xam ni damay wax toujours ni yàlla mi nga xam ne moo ko def ci xol nit ñi menn moom dong ko ci mën a génn kenn mënu lu wér laa wax ci laa ko wax jon wa yàlla suñu borom képp képp moo ko mën a génn ci xol nit mais doomu aadama mënu bu tëddoon nelaw sax ci la ko nit ñi gën a bëgg yàlla nag kenn ku ci ne mooy xool la da ngay yelloo la jaar ci mu may la ko te bu la koy may du tàpp kenn kenn ku ci ne ci ñun ñi am na lu ko suñu borom defal loxo bi ba mu koy defal tàggul kenn amul kenn tam koo xam ne da ngaa tànn nit ne ma diw ju kenn ku ne yàlla seet fa ko soob mu mu jaarale fa nga juddoo fa kon li may wax mbir yi dafa métti nii rek métti na ma ne su la wax méttiwul waaye métti na méttiwul ndax naqar bi ngay wéet mooy metti waaye loo xam ne bu la dalee àdduna bépp ñii lañuy feebar ñii di rentre hôpital ñii di jooy ñii duñu liggéey kenn ku ci ne bu dee soxna yi am na ñoo xam ne maanaam li ñu ko yëgee sax bu doon seen doon bopp di njur sax duñ man gis naa ñoo xam ne tey maanaam bu nañ ci Ousmane foo xam ne ñu tegoon seen doom Ousmane tam ñu ne ñu leen ñu ne ko tànn ko judd ñu judd ñu tànn Ousmane man am naa ci lu ma leer mën naa leer tudd ay ay nit ba bërki dem nit nit na maa wax tur maa woo ni ma su ma wóoroon ni tey su ma su ma su ma faatoon tey jii Ousmane Sonko falu soo mën na maa faatu tey sama magum jëmm la yor responsable yor la yor lépp li mu ci jublu rek maanaam ñoom yaakaar bi nit ñi am ci moom du jëm Ousmane réew mi la bëgg mu soppeeku tege ci yoon te allah kulli xaalis loolu lay am moo xam Ousmane la moo xam keneen la réew mi day baax day soppeeku léppay soppeeku Sénégal kon nag képp koo xam ne yàlla xëy na la nga bokk ci nga xam ne fas nañ ko yéene sopp ak can ak sant nga war def si borom beneen bi ci des damay wax toujours patriote yi te dama ko wax marché keroog lii ngeen nekk nii lu mas a weesu da ngeen di jàpp ni amatu foo da ngeen di door a commencé bis naka tey ma ni leen Ousmane a ngi ci biir ne jóge nañ ci prison man ngay hôpital man leen da ngeen di jël exemple ci mam cheikh ibrahim ak seigne touba parce que ñoñu nit kay sa royukaay si nga jël ci mom exemple nit seigne na jël exemple ci kay ñun seigne ñu jël exemple ci mam cheikh ibrahim exemple bobu ma koy ma ci ñëpp dama leen da ngeen di jël ci exemple ci mam cheikh ak seigne Touba mm-hmm. euh, Serigne Touba bi muy dem ci géej départ Mbacke bay gii ñuy magal li dix nii le dix août suñ tubaab dem ci ci départ dafa wo suñu Mourou musa ak suñu fal ba ñew mu yëkëte leen jox leen maam denk leen yalla yonent bi ak maam Thiam maam Thiam volonté bam def ba bi mu daataa ñëw yoonu murid mu teyeku ku wara jang mu mu jangal la ku mën a ci dëkk mu ci la dëkk suñu Mourou musa ñun yëpp mu jangal leen tek leen ci yoon ba bu suñ tuba dellusiwaatee lam mu ma mam Thiam dara yakku kon fu patriot ne da ngay japp ni Ousmane Sonko su del delluwaatee kërëm wala sa yu génnee lam fi bayiwon fi bayiwon woon da na fekk téeméer té bu patriot bu ne dafa yité muy lool li ngeen bëgg da ngeen baax ndax Ousmane Ousmane projet bi mu sumb nii suñu borom da ci adam ak man limay wax duma gëm la dama gëm ni suñu borom ànd na ci moom àdduna nag dafa am ñoo xam ni luñ bëgg lu baax bu mukk waaye am na ñoo xam ne ci lu baax rek la ñu dox ba faaw àdduna itam dafa soppeeku lu ne ba muy taxaw minorité la woon loo gis lu soppeeku rek minorité moo ko soppi minorité moo ñoo cay ne ba majorité xam ne ñii minorité bi li ñu nekk mooy dëgg ñu ñëw fekk si ñu nekk majorité loolu mooy mooy àdduna beneen bi ci des bo gisé gis nga Sénégal euh sun borom daf ñu bëgg yërem ñu melal ñu no noo xam ni melal ñu mel rew Sénégal yi nangu nañoo liggéey Sénégal am nañu jom Sénégal bëgg nañ lu baax Sénégal bëgg lu bon yërëmante nañ seen biir mais bis bu ñu amé ño xam ne fañ wara taxaw taxawé nañ fa mat la wara mat mel rew lu ñu gëna a avancé àdduna bi njiit na mu mel ne la réew may mel bis bu ñu amee njiit bu jën ñëpp a jub